bonsoir à tous et bienvenue l'invité de 7TV Soir waxtu wi jot na sunu gan yegsi na ñoom plaisir di recevoir tey ci plateau bi Talla Gueye il est le coordonnateur du projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux et agripreneurs ñu naan ko Agri Jeunes tekki ndaw ñi Talla Gueye ñu ngi lay euh, nuyu. waaw maa ngi lay fay Mamadou Ndiaye donc di euh, nuyu téléspectateur 7TV. di rafetlu donc invitation bi ñu defal euh, muy occasion pour ñu wax ci projet Agri Jeunes mm-hmm. mu nekk benn projet boo xam ni autorités yi ñoo ko fi teg pour euh, jàppale xale yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk gox goxaan yi. Mhm. ñu mën a am xëy ci lu ñuy jàpp. mu doon lu am solo dinañ ci xuus ci biir waxtaan wi waaye laataa loolee tey ji nga xam ne mooy le 18 décembre dafa nekk bés boo xam ne euh, dañ ko jagleel les migrants bu ñu nee migrants nag on pense à ce lourd tribut bi nga xam ne Sénégal euh, fay na ko ren ci ndox mi mu doon loo xam ne lu doy waar la. waaw lu doy waar la lu xam ne vraiment. Euh, ñëpp koy naqarlu parce que image ñuy gis souvent ci wàllu immigration clandestine image yu doy waar la. Mm-hmm. ay xale yoo xam ni ñuy jël gaal di jël tous les risques ak li leen ciy fekk yëpp loolu vraiment metti na ku nekk euh, mais day fa war a nekk occasion également ñu xool exactement euh, nan la ñu mën a def pour que tendance boobu ñu nga xam ne moo nekk ni actuellement ñu inversé ko progressivement. Mm-hmm. donc dafa war a nekk journée boo xam ni dañu war a gëstu gën a xalaat. pour xool nan la en tout cas régler problème boobu parce que encore une fois euh, da di phénomène boo xam ni euh, bu doy waar la boo xam ni day dépasser même les frontières du Sénégal. Mm. gis nga ni dëkk yu bari mbir maa nga fa te lu complexe la également. neexut a régler mais quand même euh, li ci am solo mooy ñu xool exactement nan la ñu mën a def pour que tendance boobu en tout cas. Ah, mu mën ko inversé ah et ce qui est paradoxal dans ça mooy euh, ndaw ñooñu di jóge Sénégal di jël ci ndox mi di dem Espagne ñu si ëpp nee nañu bu ñu demee ci ay tool la ñuy retrouver wu euh, li ñuy def foofe Sénégal xëy na propose na leen loolu lu ni mel. waaw xam nga li ci am mooy comme ni ma ko waxee phénomène bu xaw a doy waar la parce que du loo xam ni. mën nañ ko expliquer rationnellement. Mhm. man loolu laay wax quoi parce que euh, bu ñu fi jógee dañuy dem ci tool yi di nekk ay ouvrier agricole. Mhm. alors que fii au Sénégal mën nañ fi nekk yore seen activité di dérouler seen activité nekk seen njaboot wetu njaboot ba pare di mener seen activité. mais mhm. malgré ça dañ ko fi bàyyi ne dañuy dem euh, bitim réew. donc c'est parce que tout simplement peut-être information bi ñu war a am. bi ñu waroon a am pour mën a jël décision reste fii Sénégal yëngatu ci mbay meeg euh, ak lépp lu jëm ci xeetu loolu peut-être amuñu ko mais également am na lu ñu leen gëmloo yaakaar ni en fait seen euh, réussite euh, à l'extérieur la quoi donc mm-hmm. am na loo xam ni peut-être euh, lu irrationnel la moo tax li ñu war a def mooy en tout cas informer communiquer mais également am une approche pédagogique boo xam ni dañu génne ci xelu ndaw ñooñu que mën nañu toog fii au Sénégal euh, réussir au lieu que ñuy dem à l'extérieur avec tout ce que ah, comporte. mu doon lu am solo justement le projet Agri Jeunes euh, ñëw à son heure ñu bari jàpp ne mën na nekk une alternative à cette émigration bi nga xam ne elle est dite irrégulière euh, yaa ngi koy wax bi ngay door projet Agri Jeunes bëggoon naa nga ñëw ci un peu ci détail lan moo ko tax a jóg ak ñan ñoo ko tax a jóg surtout. waaw projet Agri Jeunes da di donc projet boo xam ni état du Sénégal moo ko taxawal mu ci ay partenaires yu ko jàppale lu mel ni FIDA ak la Banque africaine de développement. projet boobu ñu ngi ko banxaase ci ministère de l' agriculture l' équipement rural et la souveraineté alimentaire parce que projet boo xam ni la mu ngi intervenir ci secteur agricole au sens large. bu mhm. ëmb l' agriculture l' élevage càmm gi ak euh, napp gi. projet boobu mu ngi démarré en deux mille vingt war a jeex en deux mille <coughs> euh, état bi jël lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett ak juróomi téeméeri millions milliards ak juróomi téeméeri millions jagaleel ko projet boobu projet boobu nag li koy. Euh, wutaleeg yeneen projet yi mooy projet boo xam ni euh, jeunes yi nga xam ni ñoo nekk ci dox gu gox gu xaani ñu leen di wax les jeunes mm-hmm. ñoo ñu lay jàppale. ñu leen jàppale mooy euh, mu xool exactement jeunes yooyu yan jafe-jafe la ñu am pour mën a liggéey toog seen dëkk liggéey bi ñu gëstoo càmbar mbir mi gis nañ ne jeunes yooyu am nañu jafe-jafe yu bari yoo xam ni moo tax peut-être nañu euh, exploiter potentialité yi nga xam moo nekk ci seen gox seen dëkk yi. Euh, li ñu ci jàpp comme contrainte euh, pour me résumer rek mooy déjà jeunes yi du ñu am toujours xabaar bi war cest information. la parce que bu bu fekkee ne amuloo information doo mën a jël décision. Mhm. pour nga décider ni man par exemple mbay laa bëgg a def dama bëgg a def euh, peut-être yar ay xar walla ganaar walla def élevage. Euh, il faut nga am décision il faut am information bi xam ni y a des potentialités yoo xam ni moo nekk fii boo xam ni mën nga ci sukkandiku. Mhm. donc li ñuy njëkk a gis ci ca ci jeunes yooyu mooy. amuñu information parce que li ëpp ci information yi ci peut-être ci en zone urbaine lay doon. Mhm. leneen li mooy jeunes également euh, ñu si bari amuñu qualification. parce que mën nga bëgg liggéey ci ci ci ci ci ci mbay wala ci càmm wala ci napp. mais amuloo peut-être euh, compétence yi ak xarañte bi bu lay permettre en tout cas boo ci duggee nga réussir moo tax également déficit de qualification ci jafe-jafe yi la leneen li également mooy financement mm-hmm. euh, financement également euh, boo amul financement doo mën a def dara donc loolu également day nekk contrainte donc mm-hmm. contrainte yu bari ndax moo tax jeunes yooyu souvent du ñu am euh, possibilité wala opportunité pour mën a am liggéey ci seen. gox c'est des jeunes du monde rural lu ci ëpp euh, seen jëm seen taxawaay jëm ci ñoom bokk na ci la bonne information bokk na ci tàggat muy la formation mais également financement. Mhm. mais tey jii nii euh, ces jeunes naka lañ leen di jëlee maanaam kan moo ci kan maanaam léegi ñan ñoo éligible pour mën a bénéficier wu ci projet boobee. waaw xam nga projet bi euh, comme ni ma ko waxee les jeunes ruraux mooy jeunes yi nekk ci gox-goxaan yi. ñoom rek lay lay jàppale entre quinze ak trente cinq ans. mooy jeunes yi nga xam ni seen at mu ngi nekk ci fukk juróom ba jëm ci fanweer ak juróom mu nekk euh, góor wala jigéen. Mhm. mu nekk également jeunes yoo xam ni peut-être ñoom rek la mu individuel wala ñu nekk également ci groupement. nekk également jeune boo xam ni mas na jàng wala masul jàng parce que li ñu bëgg mooy mu bañ a am exclusion. Mhm. donc yëpp. bépp jeune daal boo xam ne mu ngi ci gox goxaan yooyu nekk ci une zone d' intervention jeune boobu am na sañ-sañu en tout cas am appui euh, projet Agri Jeunes. ñu ngi intervenir ci huit régions. yan région voilà mooy région de Thiès ak luga au niveau donc euh, de la zone nord. Mhm. région yi nekk bassin ci zone centre muy bassin arachidier muy euh, Diourbel Kaolack Fatick ak Kaffrine mais ci bët Saalum Saalum également. dañ fa intervenir parce que am nañu benn antenne bu nekk Ziguinchor boo xam ne mooy couvrir également la région de de Sédhiou. Mm-hmm. donc ci huit régions yooyu la ñuy intervenir donc n'importe jeune boo xam ne mu ngi ci zone boobu. huit sur quatorze. waaw que deviennent les les autres régions. Euh, comment comment a été fait le choix d'intervenir ci région yooyu. fa la besoin bi gën a bëri wala lan la exactement. waaw fa la cest que dañu am ay critères au départ bi ñuy ta bi ñuy tëgg projet bi dañu am ay mm-hmm. euh, yoo xam ne moom la ñu tëral. Euh, puisque dañu bëgg a dimbali jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci famille yu gën a euh, néew doole. Mm-hmm. Euh, dañu jël premier critère bi ñu jël mooy critère pauvreté muy ñàkk. donc ñu zone zone yi nga xam ni en tout cas ñàkk gi xaw na fa tar. Mm-hmm. ñu xool également zone yi nga xam ni am nañu potentialité parce que ñun li ñu bëgg mooy. Ah. sukkandiku ci potentialité yi nga xam ne moo nekk ci mbay càmm ak napp. pour jeunes yi sukkandiku ci pour mën a am liggéey. maanaam tey jii doguma la bu ñu nee euh, agriculture dangeen di fexe ba ki ngeen di koy jox mu mën ko def sur place fii fu mu dëkk bañ a sori zone bi nga xam ne fa fa la dëkk. Ah, oui oui bien sûr loolu critère la boo xam ni dañ koy teg ci taabal bi. Mhm. Euh, pour que ñu ni jeune bi mën nañu jàppale il faut que mu nekk ci zone rurale résider fa. et puis accepter di mener activité bi ci zone bi. ah parce que encore une fois loolu lutter aussi contre l'exode rural. voilà mmh. donc voilà day lutter contre l'exode parce que lu ñuy seen lu ñu bëgg lu ñu lu ñu suñu objectif mooy faire sort sorte jeune bi du ñëwati ci taax yi dëkku taax yi mais également du xalaatati sax ne mu ngi def émigration clandestine. Mhm. donc ñu fixé ko ci zone de ci ci fi mu dëkk ci terroir bi mu nekk fa di liggéey am entreprise am agricole comme yeneen ñi ay yore seen entreprise. di mhm. suturloo et puis di jàpp jàppale ah, la formation elle, elle euh, lay doon. dogal day am une partie boo xam ne dafay jël un peu de temps euh, ce que les gens n'ont très souvent aussi. voilà donc je pense que di nga ma jox occasion pour ma euh, ñëw ci formation bi. parce que mm-hmm. da di loo xam ni également spécificité Agri Jeunes la. d' abord amul benn jeune bu ñuy jàppale te nanguwul ne day def formation loolu condition la. Mm-hmm. du ñu financer ah, kenn du ñu accompagner kenn tant que defaloo formation bi nga xam ni moom la ñu la. prévoir dina tax nga xam li nga yor na voilà voilà. formation bi euh, formation bu bu complète la tàggat bu complète la euh, puisque jeune bi bu ñu ko buñ ko tànnee ba pare. dafa war a dem ci centre de formation centre de formation yi nekk ci gox-goxaan ñu leen dox wax centre de formation professionnels yi nga xam ne ñoom seen formation dafa jëm ci wàllu mbay càmm ak ak wàllu napp ñooñu lay lëkkalool jeune bi dem fa lu mu néew néew dina fa def un mois trente jours yoo xam ne dina ko nekk ci centre de formation bi. Mhm. bu fa nekkee. dina am ñu bari ñoo xam ni ñoo ko fay teeru di ko jàppale ci ci 30 jours yooyu d'abord ñi nga xam ne ñooy les formateur mooy ñi nga xam seen xam-xam dafa màcc ci tàggat ci wàllu mbay ci wàllu càmm ak loolu. ensuite dina am lu ñuy wax ay conseil en entreprise conseil moo xam ni mooy ñoo xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu nan lañu ñu war a war a yore entreprise. parce que encore une fois ñun du ñu jàppale jeune bi rek pour mu def mbay comme ça mais dañu bëgg bu ci duggee. moom mu nekk véritable entrepreneur. Hmm. entrepreneur mooy koo xam ni dafa yore mbiram di ko doxal. Euh, voilà muy def ma yaatal ko bay voilà donc hmm. moo tax. formation dinañ ko defal formation technique mooy bu fekkee par exemple dafa bëgg a def mbay nan la ko war a defee bu bëggee de par exemple dafa bëgg a réparer matériel agricole nan nan la nan la ko war a defee techniquement càmm gi également techniquement ci wàllu santé animale donc plan technique dañ koy defal formation. mais bu ñu déggee Agri Jeunes on a mais la sànq tey yaa ngi naan càmm di napp maanaam ñett yëpp ñu ngi ci ñu ci biir aussi cest ngi ci càmm ngi ci donc liggéeyu àll baa ngi ci. par mhm. exemple euh, foresterie yooyu yëpp mu ngi ci parce que àll bi également am na ay euh, lu ñu fa mën a jëlee loo xam ne mën nañ ko exploiter. Mhm. transformer ko mais également pêche et puis du nekk loo xam ni euh, uniquement production rek la ah c'est pas dangay bay gerte yooyu ki mën na ni par exemple man métier bi ma bëgg mooy euh, transformer produits agricoles yi. on en a surtout besoin loolu. <laughs> voilà wala wala mu ni man sama voilà voilà mu ni mm-hmm. man sama entreprise euh, dama may bëgg a mu nekk trans muy commercialisation uniquement. yéen amul ay exigences par rapport ak loolu. non non non non non. amul vous laissez waaw waaw ñoom ñooy def seen seen choix euh, librement. Mm-hmm. su dañ leen di encadrer tout simplement pour ñu def le bon choix. Uh-huh. mais moom mooy def choix bu ñu ko joxee information bu mu xam ni possibilité yi. mu am mais am na suivi ak évaluation. voilà am na am na am na loolu am na ci parce que encore une fois euh, ñun dañoo bëgg euh, no seulement euh, jàppale jeune yu bari ñu am liggéey parce que suñu objectif d'ici deux mille vingt six mooy lu toll ci douze mille cinq cent muy fukk ak ñaari junni ak juróomi téeméeri jeunes ñu jàppale leen ñu am liggéey. mais li ñu bëgg également mooy ñooñu ñu si bari mu nekk ay modèle ay champion yoo xam ni dañuy am mm-hmm. seen entreprise di employé yeneen jeunes ba nga xam ni yeneen jeunes yi bu ñu leen gisee peut-être dinañu ni ah ñii de vraiment jaratul ñuy dem à l'extérieur mm-hmm. parce que fii mën nga fee toog réussir am entreprise comme ni ah. ñuy amee entreprise en zone urbaine. donc léegi naan ma 2020 eh, lañ ko lancé woon 2020 léegi yàggagul ñetti at la. waaw mais bëggoon naa xam un peu dafa gum naan naan la waaw fu mu toll nii euh, suñu dernière statistique yi ñu am euh, lu toll ci ëpp ñaari junni xale déjà am nañu formation. Mhm. Euh, et ils sont opérationnels. waaw ñi ci ñooñu. Mhm. Euh, lu toll ci junni ak juróom ñetti téeméeri xale am nañu seen financement ñu ngi mën a seen activité euh, te fu mu toll nii ci ñaari weer yi wala ñetti weer yi ñuy génn nii bi ñu xaymaa suñu vitesse de croisière vitesse bi ñuy fonctionner. Mhm. lu mu néew néew euh, weer bu nekk fu mu toll nii euh, ñetti téeméeri xale dinañ leen dinañ leen insérer ci filière yooyu. Mm-hmm. puisque li ma bëgg a wax mooy quand même euh, début projet bi xawoon na metti parce que dafa coïncider woon ak avec la Covid. et xam nga projet buy démarrer ici du jël rapidement automatiquement sa vitesse de croisière parce que dinga nga mettre en place le personnel di nga mettre en place procédure yooyu yëpp mhm. yooyu yëpp day jël temps la communication voilà voilà mhm. mais depuis euh, quelque mois bi ñu defee suñu revue à mi-parcours ñu xaw a woyofal yu bari euh, parce que bi ñu saytoo gis nañ ni peut-être procédure yi am na yoo xam ne xawoon na mhm. diis voilà ñu revoir loolu yëpp gis nañ ni projet fu mu toll nii am na benn rythme bu baax ba nga xam ni tey euh, lu mu néew néew weer bu nekk dina am au moins trois cent yoo xam ni ñetti téeméeri xale yoo xam ni nañ leen former en tout cas jox leen ay financement ah les financement bëggoon na xam aussi euh, naka lay demee parce que tamit nit ki boo bëggee mu jariñoo mbiram xëy na la nga koy jox war na doon loo xam ne dina ci mën a def li li koy li koy jural waaw financement bi su yoo xam ne voilà dañ koy dégg rek <laughs> waaw xam nga approche Agri Jeunes comme ni ma ko waxee euh, approche euh, pédagogique la ak ak progressive. Mm-hmm. Euh, parce que fa ñu jëm moom moom moo tax ñuy def loolu dañu bëgg yaa ngi wax léegi surévaluation jeune bi bu ñu ko bu ko formé tàggat ko financé ko duñ ko bàyyi lu mu néew néew dinañ ko topp ci ñetti at door koo bàyyi. ba nga waaw ba nga xam ni moom dem na ba mënal boppam moo tax dañuy lëkkaloog structure yu bare. mooy euh, les DRDR euh, les DREPA mooy ñi direction yi nga xam ni mooy ci état bi di di saytu lépp di nga xam ci wàllu càmm la ak yooyu. Mm-hmm. ay ANPEJ ay ANCAR surtout état yëpp la ñuy lëkkaloo. donc ci wàllum formation ak financement da ngeen di lëkkaloo ak ñu mel ne DRFJ ñu mel ne ANPEJ ak 3FPT euh, peut-être. voilà ku nekk am na loo xam ni am na lu ñu seq ak yow. DER par exemple suñu yenn financement yi foofu la ñu koy jaarale. parce que ñoom am nañu expérience boo xam ni am nañu rapidité. ANPEJ ñëpp xam nañ ni ci awallu orientation mooy tànn. Mm-hmm. moom am na ci ñoom ñoom loolu mooy seen métier. donc ñoom dañ leen di yabal ay clients boo may tuddee noonu. ñoo xam ne ñoo ñuy jàppale ci ñoo ñu jàppale ci tànn tànn bi voilà. lu mel ni ANCAR euh, ñoom xam nga ni conseil agricole mooy jeune bi bu commencé ne activité am day soxla conseil euh, pour que techniquement ak euh, organisation sur plan au ñu jàppale ko ba nga xam ni même bu fekkee ni jot na formation dina soxla encore ñu gunge ko. Mhm. ba nga xam ni di entreprise bi dina ko mën a taxal ba mu dëgër. donc euh, pour dire que euh, véritablement approche Agri Jeunes approche bu bu originale la c'est-à-dire que ñun dañoo bëgg dem ba nga xam ni dinañu am ay modèles. ay champion mais est ni mu débuté dal na xel maanaam ni muy màggee nii par rapport ñi ngeen di topp xëy na yàggagul ñetti at dong la mais est que euh, seen croissance mi ngi mi ngi évoluer euh, positivement bu ma la tuddee noonu. waaw mu ngi évoluer parce que euh, déjà comme ni ma la ko waxee depuis quelque temps ñu ngi ci benn mu ko am solo. Mhm. donc avec une moyenne de trois cents jeunes yu ñuy enrôler chaque chaque mois. mais deuxième les activités yi mais deux deuxièmement euh, ñu ngi am ay retour retour d' information ci terrain bi jeunes yi nga xam ni jotoon nañu seen financement ci temps yële. Mhm. am na ñoo xam ni tey euh, ñu ngi euh, am ay résultat à s'en waaw waaw. am na jeunes yoo am par exemple moo la joxee benn exemple benn jeune bu nekk dans la zone de région de Louga commune de Mboula. Euh, bi mu defee ñetti ñetti activité aveculture la doon def da doon yar ay ay ganaar mu def ñetti euh, ñetti bande euh, mu ngi retrouvé wu avec un chiffre d'affaires de huit cent quarante mille am na tey jeunes yoo xam ne ñu ngi ci maraîchage te mooy mbayum mbayum mbayum noor waaw am na ñoo xam ne tey seen revenu seen bénéfice net ça tourne autour de deux cent mille par par par net par mois. ah mais bien mais am bëggoon naa xam aussi euh, par rapport ak choix li ñuy li ñuy jëf li ñuy def euh, xam nga ne am sànq da leen di bàyyi ñoom xëy na ñu librement. mais am na yoo xam ne xëy na yéen xam ñoom duñ ko xam maanaam yi gën a gaaw ak yi gën a rapporté foofu aussi est-ce que da fa intervenir ci ay conseils yu yu ni mel. waaw xam nga déjà dégg naa <laughs> moo tax ñun dañoo recruter ñi ñuy wax ay opérateur d' animation. Mm-hmm. opérateur d' animation la ay organisation yoo xam ni ay euh, professionnels ñoo ci nekk. mu lu mel ni par exemple ay CNCR ay MSD. Mm-hmm. ay forces paysannes nga xam ne ñoo am nañu expérience. Mm-hmm. ci wàllu mbay ci wàllu càmm. ñooñu la ñuy ñooñu dañuy lëkkaloo ñoom am ak ñoom ay partenariat pour bu ñuy tànn également jeunes yi ñoom ñu intervenir. Mm-hmm. pour mën a encadrer jeunes yi comme ni mu ko waxee jeune bi moom la ñuy bàyyi mu choisir. parce que duñu force duñu kenn. Mm-hmm. mais dañ koy jox toute l' information encadrer ko ba nga xam ni dina def un bon choix te nit ñi tëggee projet bi euh, comme ni ma ko waxee bi ñuy tànn région yeeg yooyu zone yi dañu ni. Euh, zone bu nekk dañoo xool ndax am na potentialité. Mm-hmm. tey boo demee dans la région de de Thiès ba Louga gis nga ni foofu am na potentiel matière de maraîchage. nga jëm dans la zone centre. Mm-hmm. foofu dañuy wax le les culture pluviales muy tout ce qui est mbayum gerteeg dugub ak et cetera. donc yu ci nekk am na fu mu gën a dox. voilà nga dem euh, région de la zone sud lu mel ni Ziguinchor ak Sédhiou foofu affaire ah gis nga foresterie mooy euh, àll bi xaw na xaw na naat. Mm-hmm. nit ñi mën nañ ci xale yi mën nañ ci sukkandiku euh, donc def ay. ay euh, ay activités yoo xam ne dinañ mën a sukkandiku ci potentialité. Mm-hmm. donc choix bi per évidemment choix bi day day day li koy déterminer mooy. potentialité bi nga xam ne moo nekk ci zone bi. mais également jeune bi buy def cho buy def choix am day am ñoo xam ne dañ koy encadrer ba nga xam ni dina def choix bu pertinent bu bu defee choix bi également dañ koy jàppale comme ni ma la ko waxee ci centre de formation yi. Mm-hmm. jeune bi. Euh, dañ koy tàggat techniquement tàggat ko ci entrepreneuriat pour que bu nan lay mën a taxawale entrepreneur entrepreneur entreprise mais également dañ koy tàggat ci éducation financière c'est-à-dire que bu demee tey ba commencé am activité revenu yi di ñëw maa ngi wax fii ay huit cent et quelques mille kooku day laaj mu xam nan lay mën a gérer xaalis boobu mm-hmm. mu bañ a confondre par exemple chiffre d'affaires ak bénéfice li nga xam ne war na ko mën a dugalaat ci mbir pour mu mm-hmm. développer donc dañ koy tàggat ci fànn yooyu yëpp te bu nekkee ci centre de formation bi daanaka bu ñu jëlee euh, fan euh, un mois boobu vingt pour cent ci temps bi muy def ci centre de formation bi loolu rek lay def théorie mm-hmm. li ci des quatre pour cent yi temps boobu yëpp ci pratique la koy def parce que bu nekkee ci centre bi jàng ci salle de centre ci salle salle de classe yi ak les formateurs day génn dem ci biti ci tool yi. Mhm. parce que loolu ñooñu la ñuy wax ay tuteurs. Mhm. ay tuteurs dañoo dañoo am également ay tuteurs yoo xam ni ñooy bokk ci formation bi muy par exemple ñoo xam ni tey seen xam-xam euh, màcc na ci wàllu mbay ci wàllu càmm yàgg nañu yore entreprise yàgg nañu def ay ay ay ay activités. entre entrepreneurial ñooñu dañ leen di recruter ba nga xam ne jeune bi bu nekkee ci centre de formation pendant un certain temps. Mhm. mu dem tuteur bi recevoir ko wan ko mbir mi nan lañ koy defee mu jàng ko donc ce qui veut dire que formation à la fois théorique la mais plus que pratique ah ni ngeen ko tëggee nii euh, baax na sur le papier euh, ni muy demee aussi euh, xëy na dal na xel mais bëggoon naa xam ndax yéen a ngi inspiré wu ci échec yi nga xam ne am na dans le passé d'autres programmes yoo xam ne xëy na état tegoon na ko te amuñ ci liñ ci bëgg je veux citer Prodac par exemple waaw bon je ne peux je ne peux pas parler d'échec euh, mais euh, xam nga dañu nekk ci ci ci ère bu ñuy wax gestion axée sur les muy muy li ñuy wax gaar mm-hmm. euh, gestion sur les résultats li ñu lay njëkk a wax mooy bépp projet boo def bu jeexee danga cee war a jàng mm-hmm. pas plus tard que il y la de cela deux semaines ñu ngi jóge woon ci benn voyage d'étude bu ñu def bu ñu defoon Madagascar ànd ci woon ak ay jeunes yoo xam ni ñoom la ñu encadré fii yu jógee dans la zone nord comme dans la zone sud ñu ànd ak ñoom parce que dafa am pro projet programme boo xam ne bu mel noonu bu nekk Madagascar boo xam ne ñoom def nañu dix ans. ñoo leen ci jiitu. waaw te même bailleur bi la muy FIDA moo leen ñu ne woon nañu dem xool ñooñu nan la ñuy nan la ñu def. Mm-hmm. ba nga xam ne la baaxul la nekk foofu bu ñu ñëwee ñu capitaliser ko pour gën a ñoŋal mbir mi. Mm-hmm. cela veut dire que bi ñuy tëgg projet bi Agri Jeunes jàng nañ ci li fi li fi passé. waaw c'est xam nga tey projet yu bari dañ la doon wax ni euh, peut-être formation rek la ñuy la ñuy la ñuy defal jeune bi peut-être après bu demee dina mën a demal ci boppam ci financement. du mel ni tey DER financement lay def. n'est-ce pas. voilà voilà propriété mais ñun. tey dañuy dañuy jeune bi loolu yëpp dañ la koy defal. même su fekkee ni projet bi moo moo koy def directement mais day lëkkaloog ñooñu. ba nga xam ni lépp li nga xam ni jeune bi soxla na ko dinañ ko ko jox avant ñu koy bàyyi. Mm-hmm. wax nañ la fii par exemple for euh, information. xam nga projet yu bari wàllu information daawuñu ci bàyyi xel. day ñëw rek commencé tànn après. Euh, te fii sax yi projet yu bëri ko suuxal dañuy jël ndaw yi jox ko xaalis. voilà amaana tàggatuñ ko à la la base. aussi après du am benn suivi bi ba xaalis ba day mujj nax saay. voilà pour pour wax encore ci ay exemple euh, ndax jàng nañu ci li weesu. Mm-hmm. ñun bu ñuy financer jeune bi. duñ ko ñëw jox ko xaalis bi directement. ah parce que. fan ngeen koy jaarale. <laughs> parce que actuellement actuellement avec lii xew. Mm-hmm. mën nga jël xaalis bi jox ko jeune bi mu dem dugg ci. gaal yi dem certains fait apparemment mm-hmm. li ñuy def mooy dañuy lëkkaloog ak ay fournisseurs. mooy par exemple voilà jeune bi bu fekkee dafa soxla matériel agricole dafa soxla jiw euh, dafa soxla engrais. dafa am ay fournisseurs yoo xam ne ñoom la ñuy lëkkalool. léegi bu ñu tëggee projet projet bi ba pare ñu xam ne lii la soxla ci semence ci jiw lii la soxla ci petit matériel lii la soxla ci engrais et cetera dañuy lëkkaloog fournisseur bi ñu viré ko xaalis bi fournisseur bi. dem jëndal ko jëndal ko indil ko ko. Mhm. bu ko ko indilee ba ñu xool ni lii indil na ko ko léegi ñu door fay fournisseur bi. ñu dem def PV avec les partenaires. ñu mhm. constater en tout cas que ah, matériel baa ngi fii lépp a ngi fii voilà ñu door a fay fournisseur bi la nga xam ne moom la ñuy def ci compte jeune bi lu néew la mooy loo xam ni soxla na ko pour voilà muy roulement mm-hmm. muy fonds de roulement donc loolu c'est une façon en tout cas mm-hmm. pour ñu sécuriser la la le le financement et puis euh, moom loolu également ci originalité Agri Jeunes la cest que dañu bëgg jeune bi tout au long du processus muy jàng. ah tey jii euh, daanaka temps bi jeex nañu dernière question. Mm-hmm. ndax. jeunes yiy génn yëpp di wuti leneen feneen. projet Agri Jeunes mën na leen téye fi ma ko wax mooy seen objectif ci at yu ñu jëm euh, ñaata la ak naka naka la dina doon waaw li ma li ma li ma li ma ma ciy wax ci foofu mooy euh, euh, Agri Jeunes dafa nekk benn dispositif boo xam ni état bi teg na ko mais. loolu rek moo fi am am na leen am na yeneen projet wax nga fi DER wax nga leneen mm-hmm. donc benn élément la ci dispositif bi nga xam ni autorité teg nañ ko pour régler l'emploi des jeunes ñun li ñu sas d'ici deux mille vingt six mooy Euh, au moins douze mille cinq cent jeunes ñu insérer leen. mooy fukki euh, fukk ak ñaari junni euh, xale ak juróomi téeméer lu mu néew néew ñoo ñu war nañ leen a mën a former tàggal leen finan jàpp leen ba ñu am financement. Mhm. ba ñu mën a commencer di liggéey. am seen entreprise ba pare di employer. ay jeunes parce que si douze mille cinq cent yooyu. yaakaar nañ ne au moins huit mille sept cent cinquante emplois jeune yooyu dinañ ko créer parce que benn jeune bi jeune bi bu commencé bay développé wu mhm. dina am ay revenu ba mën a réinvestir ba nga xam ne dina soxla peut-être voilà mu mu mu mu former yeneen mu employé yeneen jeunes mhm. mais li ñu bëgg également ci douze mille cinq cent jeunes yooyu au moins mu am ay champion encore ni ma ko waxoon champion yooyu seen rôle mooy yeneen jeunes yi nga xam ni peut-être ñoom amuñu am jàppale wuñu leen ñu mën a inspiré wu ci jeunes yooyu. pour mën a toog parce que état day investir mais également dañ ko ci war a fekk. Mm-hmm. moo tax yéen ngeen formé. waaw ay relais la ñu doon après. voilà ils vont travailler avec d'autres yoo xam ne aussi dañ leen di former. voilà ay modèle la ñuy doon ñeneen ñi dinañ ci roy. inspiré wu ci moo tax état bi bu investir par exemple nee naa la état bi dina def na ci vingt huit virgule cinq milliards. ci mm-hmm. projet Agri Jeunes mais ñun bu ñuy sa bu ñuy bu ñuy natt ëllëg du ñu xool rek est-ce que créé nañu. douze mille cinq cent emplois mais dañuy xool est-ce que est-ce que loolu lu mu jur est-ce que am na yeneen jeunes yoo xam ni loolu mooy vrai <laughs> voilà am na ay modèles yoo xam ni généré na yeneen parce que l'investissement là il faut que mu am nekk un effet multiplicateur parce que l'État moom rek mënul régler le problème de l'emploi des jeunes mm-hmm. bu defee bu defee dara ñeneen ñi war lañ ko ci fekk certainement dina am jeunes yoo xam ni sax xaalis bi ñuy jël di ko yóbbu di ko dugg def ci gaal yi ñoom dinañ gis ne ah. kii de réussir na man dinaa jël sama xaalis man ma investir mu nekk l'auto l'auto l'auto emploi donc vraiment approche pédagogique boobu mhm. la bëgg a développer ba nga xam ni euh, d'ici quelque temps au moins tendance bi nga xam ni gis nañ ko mu nekk tendance boo xam ni euh, buy inversé wu merci beaucoup di la sant bu baax a baax jërëjëf merci Talla Gueye mu nekkoon sunu gan coordonnateur du projet euh, d'appui à Agri Jeunes tekki ndaw ñi dig daje suba jàmm 19 h beneen gan yaa ngeen jëf merci beaucoup Merci, Omarou.